koy dóor ña nga ca suuf ñoom ñaar lan moo xew xale yaa ngay bëre bëtt na ko mais arbitre arbitre waroon naa bàyyi waroon naa bàyyi lamb ji dem mais pourquoi mu arrêté lamb ji oh tegal sees bu ñoro fi nekkoon yàq na lamb ji Ah. ay tam yu noonu oh nee naa la tegal siis bu rafet gisoon naa ko fi ca yanqaaw ak général waaye yanqaaw a ngi noonu

ngi noonu ma ay caar bi bi sifle waan na génn seen diggante ñoom ñaar général bu Pikine moo la wan ginnaaw Yankaw 2 moom nga jàkkaar lool ndeysaan bëri nañ fi legi bëri bu neex ñom ñaar General dox na ci kaw yang dor. Dari taxawa dari dorat. Dorat. fayu dooraat mu fayu ña ngay xeex eh ña ngay xeex ña ngay xeex jàppante nañu de jàppante nañu de lan mooy xew jàppante nañu de général ak Yankaw jàppante nañu ñoom ñaar lan xew dina fi jeexee wala du fi jeexee général nga rokkas war ci suuf a nga rokkas bëtt ko mais arbitre mais arbitre mais arbitre ah. Hey, hey. ay ta mu ngi noonu Ardo mu ngi noonu Ardo waaye combat bi mu yombul ci ñaari xale yi laa ilaha illallah moom moo nekk huitième combat de la soirée bi tey ñu ànd production grand combat bi war a dox ci diggante Ama bu Malika ak fils de ki bàyyee ko Malika ki bàyyee ko fi nga xamante ne mooy mooy Pikine moom doomi Sadio Ndiaye ji ay ca mu ngi noonu ndeysaan kot su baa ngi koy ëpp moom yaa ngi xaw mu ngi noonu ardo nee nañ ko saxal protestant bi nee nañ ko saxal protestant bi mu ngi noonu ñu la ko saxal Forza bi ndeysaan coach su baa ngi koy defar loxo nee na ko bu ay ca ñu ngi noonu ñoom ñaar ñëwaat nañ ñoom ñaar de général moom fàtte na protestant ba di général moom fàtte na protestant yi de mu ngi noonu de ay ca arbitre bi sifflé waat na génn seen diggante ñoom ñaar mu nekk général wan leen ginnaaw bu Pikine muy jàkkaarloo Yankaw numéro 2 ñu bëre fi ñoom ñaar kau dem fi ñaar yoon arro daal di ñëwaat combat bi yombul général dóoraat na général dóoraat na de tibb suuf nee na coppee tànk bi <laughs> wali la la gis naa fi Isa Wara ay ca dóoraat na général xeex bi lay cherché waaye kau bëre bi lay cherché général na général dóoraat na Doran na général dóoraan na dóor jàppante waat nañu ñoom ñaar jàppante wat nañu jàppante wat nañu général am na ngeem général ma ngay roxo ci suuf général ngay roxo ci suuf général ma ngay roxo ci suuf général ngay roxo ci suuf général ma ngay roxo ci suuf way yaa numéro 2 mi ngi jappam deugar ma ngay rox ci suuf ma ngay dóor ma ngay fayu ko ña nga suuf ñoom ñaar lan mooy xew ña nga suuf génn nañ saaku yi génn nañ saaku yi laa ilaaha ba tey ñoom ñaar daje nañ ci kaw de daje nañ ci kaw ñoom ñaar général bu Pikine Yankaw Yankaw ak général bu Pikine jàppante waat nañu ñoom ñaar de jàppante waat nañu ñaar général ngay rokko ci suuf mu ngi noonu yóbbu na ko ardo combat bi metti na de combat bi metti na. tur ci suuf. général ak Yankaw général ak Yankaw ñu ngi noonu. général ak Yankaw ñu ngi noonu ñoom ñaar. général ak Yankaw combat bi metti na ci ñaari xale yi. général ak Yankaw général Kolbal wàccaat na moom xale bi. combat bi métti na général ak Yankaw général ak Yankaw laa ilaaha illallah Yankaw malgré gaañu na waaye ma ngay bëre bëre bu rëy moom Yankaw la bëggoon moom yanxaaw yanxaaw lii la bëggoon de général ma ngay ronko ci suuf yanxaaw jàpp na ma ngay fayu ci suuf yanxaaw ma ngay fayu ci suuf yanxaaw ak général général jàpp na ci téere bi général jàpp na ci téere loxo bi général ak yanxaaw ña ngay de général ak yanqaaw général ak yanqaaw xar na ko jëppeen mu daal di bañ général la ngay tóor général la ngay tóor na yàgg na waaye nee naa la Yankaw mi der la xale bi der la ay ca arbitre bi sifflé waa na génn seen diggante ñaar général bu Pikine wan leen ginnaaw Yankaw numéro 2 moom ngeen jàkkaar lool léegi temps bi jeex bu temps bi jeexee ki nga xamante ne mooy Yankaw day ñàkk ndax am na trois avertissement général bu Pikine ak Yankaw